alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala ashrafil mursalin sayidina muhammadin almakin wa ala wa saxaabatihi ajmain wa man tabiahum bi ixsanin ila yawmi ddin asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk yi bi nu sante yàlla julli ci yonent bi ngi leen di nuyu di leen ziyaar di ñaan sunu kàddu gi fekk leen ci jàmm yéen ñëpp di am mbégte tey di fas yéene yeggali sunu waxtaan wi ñu doon def ci xam-xam euh, mu nekk tey waxtaanu ñeenteel wi ngir waxtaanu euh, ñetteel ba dañ ko xaajoon mu jëmoon ci xeeti xam-xam yi euh, ñu waxoon ci xaajoon ko jëmale woon xaaj bu njëkk bi ci xam-xam bi wax ci xam-xamu àdduna ak xam-xamu diine mu mel ni ñaar yooyu ñoo fi nekk dund gi ak dundu gële ñu jëm Euh, ñu waxoon ne xam-xamu diine mooy xam-xam bi lay xamal euh, li la li tax sunu borom bind la euh, wàcc la ci kaw suuf di jaamu ko te sellal jaamu gi xam-xam boobu moo lay dimbali ci xam ay ndigalam mën koo jëfe waaye it xam ay tereem ba man koo bàyyi ginnaaw bi nga xamee ay àqam ak yelleefam yi nga xam ne moom nga séq ak moom seq ko it ak sa mbokku euh, doomu aadama yi nga xam ne ñoom nga bokkal ci kaw suuf lépp lu jëm ci digle sunu borom ak tere la koy xamle loola ci diine xam-xamu diine lañ koy tuddee nga xam ne day jaar fa jaar ci yàlla wàcc ci ay malaaka wàcc ci ay yenent ñëw ci doomu aadama yi mu des xam-xamu àdduna bi mooy li yàlla bind lépp ci kaw suuf buy euh, ay jumtuwaay ak lu mu mën a doon Euh, baaxee ko doomu aadama ngir nekkinam ci kaw suuf doomu aadama wara war a xam am xam-xam góorgóorlu ci mën a gëstu yooyu ba mën koo jëfandikoo ci nu mu gën a rafete loolu lañ jublu woon ci xeet yooyu tey nag ñu ñëw bëgg a waxtaanee beneen xaaj ci xeeti xam-xam yi muy tey dañuy jël xam-xam xaaj ko ñaari xaajit muy xam-xam buy jariñ ak xam-xam bu dul jariñ muy xam-xam bu am njariñ ak xam-xam bu amul njariñ arab di ko wax al ilmu naafia wala ilmu xayru naafia wala addaar loolu nag dafa am boroom xam-xam yoo xam ne dañoo jël xam-xam xaaj ko ñaar lii nag buñ ko waxee liñ ci jublu wala moo ci man ci sama déggin mooy li nga xam ne moom lañuy tuddee yéene ji mooy nit ki buy sàkku xam-xam la muy sàkku lam ci yéenee def loole mooy tax xam-xam booba baax wala mu bon ndax ci sama xalaat xam-xam yépp xëy na mën naa baax waaye ma nga ma nga aju ca naka nga koy mën a jëfandikoo lum sell sell yit jëmm ja jëmmi xam-xam ba ca boppam mën naa baax waaye na koy jëfandikoo yit mën naa mën naa yées kon li ma jublu foofu mooy taqsimul ilm bi itibaari al qasd muy sa jubluwaay ci la ngay sàkku Euh, xam-xam bi nga xam ne moom la ñu tuddee xam-xam bu am njariñ euh, mooy bi nga xam ne junjoon lañ ko te wax ne mooy xam-xam bi nga xam ne moom ngay sàkku te jëmi yàlla tax euh, ngir xam sunu borom waaye xam noo koy jaamoo ak tamit defar sa jikko ba mu rafet xam-xam boobu nag moo xam xam diine la wala xam-xamu àdduna la waaye lépp looy sàkku te fes yéene jaamoo ko yàlla ci kaw suuf loole xam-xam bu am njariñ lañ koy tudde junjoon dañ ko nag ca waxtaan wala nga xam ne moo weesu woon xam-xam bi doomu aadama war a jiital nag ci xam-xamu àdduna wala xam-xamu diine mooy xam-xamu diine la war a jiital ndax mooy li nga xam ne moo njëkk te gën a am solo ndax sunu borom subhanahu wa taala ngi wax ci suratul alaq iqra bismi rabbika allazi xalaq kon iqra bu njëkk bi jàngal sa turu borom la ci lañ lañ ci jiital buñ continuer aaya bi jàng ko da nga gis ni am na beneen iqra bu nekk ci biir iqra boobu nag boroom xam-xam yi am na ñu ci wax ne lañ ci jublu mooy jàng mbirum àdduna yit kon iqra bu njëkk bi dafa lem la ca la ca suñ boroom teg rekk mooy iqra bismi rabbika alladi xalaqa xalaqal insana min alaq iqra wa rabbukal akram yàllaa xam lu mu ci jublu dëgg-dëgg waaye ca lañ ca mën a déggee daal mooy njàng lu am solo la waaye boo cay jiital na nga ca jiital la yàlla bëgg ca yow muy nga xam noo koy jaamoo ba noppi kon xam-xamu diine moo war njëkk ci ci ci ci ci li doomu aadama bi di sàkku ndax ci bàmmeelam loole lañ koy laaj waaye yowmal xiyaam it lañ koy laaj kon xam-xam bi nga xam ne moom ngay sàkku te yàlla tax mooy xam-xam bi nga xam ni mooy xam-xam bu am njariñ bi ndax xam-xam sàkku ko ak jëfe ko jaamu yàlla la te jamu yàlla dafa am ay charte ngir sunu borom nangu ko bokk na ca charte yooyee mooy nga jublu ca ngërëmul sunu borom dañuy loolu nag bari na ci alxuraan wa maa umiru illa li yaabudullaha muxlisina lahu diin yàlla diglewut lu dul ñu jaamu ko waaye ñu sellal jaamu ga mooy bañ koo bokkaaleeg lenn lu dul sàkku ci ngërëmal moom dong dong wax na it ne ci alquran ci suratul kafi fa man kaana yarju liqaa rabbihi fal yaamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbihi ahad loolu mooy képp koo xam ne yaakaar na taseek ëllëg sunu borom maanaam yërmandeem buy jaamu yàlla na sellal jaamu yàlla ga bañoo bañ a bokkaale ak sunu borom subhanahu wa taala waaye it na ko teg ci sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon loolu lu am solo la bu fekkee ne nag nit ki day sàkku xam-xam xam bu mu ci mën a doon moo xam xam-xamu diine la wala xam-xamu àdduna la waaye sàkku ci àdduna yi kese kese kese fii moo xam daraja la moo xam tur la moo xam xaalis bu bari la moo xam lu lu mën a doon rek waaye fii rek la yam sóoraale wu ci ngërëmul yàlla sóoraale ci euh, euh, jaamu yàlla loole du ko jariñ ci àdduna du ko jariñ ci àllaaxira wala bokk mën na noo wax ne njariñ lu gàtt la ci ci àdduna ji waaye du yegg ya àllaaxira ndax ndax jaam bi ñaari kër la am mooy këruk àdduna gi nga xam ne day jeex ak këruk àllaaxira ngee nga xam ne day sax yàlla wax na ci alxuraan wala daarul axira xayrun xayrun wa abqa alaxira de moo gën ci bu ngeen ko xamoon te moo gën a saxit wax na ne fa man fa man asara alxayaata dunia ala al mubina kon képp koo xam ne euh, fexe na ba tànn àdduna gi mu gënal ko alaxira kooka euh, toskore na waaye perte na perte bu bu bu feeñ bu wér loolu it dañ koy gis ci alxuraan lu bare bare bari mu ñuy soññ ci ñuy fexe di góorgóorlu di sellal suñu yéene ci li ñuy jëf ñu di ci sàkku ngërëmul yàlla ndax loole moo jëm alaxira sunu borom wax ne fa amma man toxa wa athara alxayata dunia fa inna al jaxima hiya al ku bew ci yéen ba fàtte alaxira jiital àdduna na ko moom dong kooka sawara mooy këram yowmal xiyaam wax na it ne man kaana yuridul xayaata dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim amalahum fiha wa hum fiha la yubxasuun ulaika allazina laysa lahum fi l axirati illa annaar wa xabita ma sanau fiha wa baatilu ma kaanu yaamaluun ndax nit ñi nga xam ne dañuy seeni jubluwaay ci li ñuy sàkku ci àdduna ñaari murit rek ñoo am dañu tuddee murit nag bu ma ko waxee waxuma ñu bokk ci ab tarixa waaye naka sunu borom tuddee yuridu wala murit mooy ki namm dara bëgg dara mooy kii sàkku dara kon kii sàkku imma day sàkku àdduna ak alaxira wala muy sàkku àdduna kese sun borom nag dafa wax ni ki nga xam ne àdduna rek rek rek ko yitteel moom lay sàkku yow fii de dana fi am tuuti dana fi am tuuti ci li ko li ko suñu borom dogalal dana ko ci am waaye yowmal xiyaam du fa am lenn lu dul sawara te lépp lu mu jëfoo nit yàqu na fii ndax comme du kër guy sax loo fi jëf lu mu bari bari bari boo fi jógee rek loola foofa lay yem kon muy xam-xam bu mu mën a doon bu bu àdduna rek taxee bu ko àdduna rek taxee jóg fii rek moom moom lay yam mën nañ cee joxe misaal rek mooy réew yi nga xam ne gëmuñu yàlla lépp lu ñu avancé ci technologie ak fépp fu ñu yegg ci mën a tabax ci mën a dem ci jaww ji ci mën a dem ci biir géej gi ci mën a defar ay arme ci jiitu ci ci ci zaayir bu fekkee ne yàlla dimbaliwu leen ba ñu am ngëm yàlla ak jëf lu baax lu ñu yóbbu yomal xayam loolee lépp bu àddina di tukki wala ñoom bu ñuy faatu rek lépp fii lañ koy bàyyi te fii lay yem kon loolu du yegg yowmal xiyaam lu dul merum yàlla lañ fa yóbbu ak sawara yàlla nañ ci yàlla musal seen xam-xam boobu nag dafa mel ni sax suñu borom junj na ko ci ci àdduna muy ci bu ñu na ko ci alxuraan muy fi muy waxee naan yaalamuuna zahiran min alxayaati dunya wa hum anil axirati hum xaafiluun ñoom xam nañ xam-xam bu zaayira bi nekk ci àdduna rek rek rek waaye seen bët yi dafa mel ni dafa fattu ba yàlla mayu leen xam-xam bi nga xam ne moo leen di gindi ñu teg ci ñu tegu ci leeru suñu borom gi nga xam ne ëllëg dinañ mën a gëm yowmal xiyaam kon seen yëngatu yëpp àdduna rek ko tax a jóg kon seen yëngatu yëpp àdduna moo ko tax a jóg kon yàlla yàlla musal ci ci façon xam boo xam ne mbirum àdduna rek moo ko tax a jóg ah, kon xam-xam bi nga xam ne moo am njariñ daal ndeke ne mooy xam-xam boo xam ne daje na daje na ci muy njariñu àdduna ak njariñu alaaxira te ñaar yooyu duñu mën a daje mukk fekk boroom xam-xam bi ba koy sàkku jubluwu ci jaamu yàlla subhaanahu wa taala comme li sunu borom wax wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yaabuduuna binduma nit ak jinne lu dul ñu jaamu sëriñ bi muy Serigne Touba euh, ñun danoo dafa nekk nit koo xam ne yàlla da koo may ci euh, fi ko sunu borom jaarale ba mu yegg si fii mu yegg si nekkoon nit koo xam ne ku gëm boppam la ku gëm yàlla te doyloo sunu borom euh, nekkoon ci jamono joo xam ne jamono joo xam ne xawoon naa jaxasoo tuuti ndax booba ceddo yaa ngi fi waaye it tubaab yi ñu ngi fi di noot nit ñi jullit ñi nekk fi ñu nekk ci seen diggante am ci ñoo xam ne ci boroom xam-xam yi daa mel ni seenu xam-xam wala lañ am ci xam-xam am na ca ñoo xam ne dañ cay sàkku àdduna yi kese moo xam ñi nga xam ne dañoo bokk ci tubaab bi lañ gis tubaab bi ak li ko sunu borom may ñu yéem tubaab bi ba ànd moom di sàkku pañetum àdduna waaye it am ci boroom xam-xam yi ñoo xam ne seeni xam-xami lislaam muy xam-xamu diine ba sax dañoo far di ca wut àdduna ba tax na sëriñ bi taalif ab téere bu am solo ngir delloo siwaat nit ñi ci njub delloo siwaat nit ñi ci yàlla ak ci tawxid muy wax lu baree baree bari muy téere bu am solo di masaalikul jinaan ma amoon lu mu ci jukki ngir njariñ la ca nekk eh, lii nag li tax ñu def ko mooy nit dafa war a am fierté mooy gëm sa bopp ndax nit koo xam ne ci sa biir réew la nekk mel ni mel xam lim xam def lim def nga teg ci sa bët kooku lu mu gàtt-gàtt woowu ma ngir nit ñëpp gëm kenn ndax yàlla mi ñu bind sax ñëpp gëmuñu ko te coobareem la yenent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne moom la yàlla yónni ci ñëpp ñëpp gëmuñu ko kon jàpp nañ ne diversité ci gëm loolu yàlla moo ko namm ci kaw suuf waaye nit ki tamit bu gisee lu baax ak fu mu mën a bokk war naa eh, am fierté lu rawatina koo xam ne danga bokk ak moom lépp muy bokk der bokk làkk léeg-léeg bokk réew bokk jubluwaay bokk lu baree baree bari mu bokkee ci sam réew balaa ngay jëli doo waxuma de doo jëli ci àll ba waaye boo mënee jëli ci àll ba yit ci ko xam ne masoo koo xam masoo koo dégg it lu dul am mbindam nga gis nga man koo jël di ko di ca di ca jëlee ay adil la kon ku la jegee noona it defe naa ne boo dee xam-xam rek ngay wut war ngaa mën a gëstu it ay mbindam boo ci gisee njariñ nga jariñoo ko kon loolu euh, nekkut liñ ci bokk waaye euh, dafa nekk loo xam ne loolu la borom xel di def waaye koo xam ne it parparloowu it lool lool loolu lay def koo xam ne dëgg rek lay wut fu mu gis dëgg da koy daal di jël kon tey damaa ñëw ngir sukkandiku ci mbindum Serigne Touba euh, te doyloo ko lool nag ci euh, waxtaane tuuti ci xam-xam bi nga xam ne moom mooy xam-xam bu am njariñ sëriñ bi wax na ne ci bayit yu guddee gudd gudd gudd waaye ñu jël ci ay jukki mu ne naafiuhu allazi lfata taallama lillahi jalla waxdahu wa allama mu ne xam-xamkat ba ca am njariñ mooy bi nga xam ne nit ki jàng na ko te jëmmi yàlla tax jëmmi yàlla dong dong nag mu wax ne fa naafiyul ulumi aydan ma afaat saaxibahu xashyata xaaliqil ibaad xam-xam daal bi ci am njariñ nee mooy bi nga xam ne jariñ na boroomam indil ko ak ragal yàlla mi nga xam ne moo bind nit ñëpp mu ne wa zulla wa wa zulli wa zuhdi wa kasratul adab wal iftixaarin wa tawaaduin jazab xam-xam bi tax nga torox lu jëm ci sa borom waaye it nga dëddu àdduna ba doo bëgg àdduna dugal ko sa xol waaye tamit nga nekk nit koo xam ne ku am teggin ku bari teggin moom ngay doon sa digganteeg sa borom ak sa digganteeg sa nit ñi nit ko xay xam ne it nit ku woyof ngay doon xam-xam boobu da lay xëcc jëmale ci ak woyof jëmale ci torox lu jëm ci suñu borom bi ak tamit euh, ak tuutal sa bopp wa taxaral xalba wa nafsuhu xama wa min maasi xaalixil wara mana nee na xam-xam bi am njëriñ mooy xam-xam bi nga xam ne day setal sa xol koy raxas bam set ci kiñaan ci lu mën a doon ci borkaale euh, daadi di ne wala bokk daadi di sa bakken ba du dem ci moy sunu borom mi nga xam ne moo bind nit ñi kon ndeke ne xam-xam kon da lay jëmale ci yàlla waaye day fexe ba doo moy sunu borom subhanahu wa mu ne amal lazi lam yakun hakaza falam yam na xadan min naari na naam mu ne xam-xam bu dul boobu boo xam ne du la jëme ci yàlla du tax nga setal sa biir du tax nga jaamu yàlla bàyyi mooy nee na xam-xam bu dul boobu yowmal xiyaam yowmal xiyaam du la teree dem sawara nee na Sëñ Tuubaa moo wax loolu mu continuer di wax ne bal naa naafiu lulumi alladi xat allama fatan uyuba nafsihi wa allama nee na xam-xam yi daal bi ci am njëriñ mooy it xam-xam bi nga xam ne nit ki bu ko jàngee dana gis ay ayibu boppam ba man koo defar lii nag lu am solo la ndax nit jàng ba noppi mel na nga meloon loola mooy njàng ma amut benn jeexintal ci yow waaye kon xam-xam li muy def mooy say ayibi bopp la lay wan ba noppi nga jéem koo defar balaa ngay defar kenn laa laa tanha an xuluqin wa tatiya mislahu aarun alayka isa faalta azimu yeddaangale ju réy ak gàcca nit ki di digle lum dul def wala muy tere lum dul bàyyi kon nit ki da ngay njëkkee sa bopp ba noppi mu continuer di wax ni xam-xam bi nga xam ne wa jarrahu li sabri wa saxaa'i wal xilmi wal ixlaasi wal xayaa yi xam-xam bi nga xam ne moo lay jëmee ci muñ bu ay nattu ñëwee wala ay mettiti mettit mu jox la mu jox la nga mën a muñ wa saxaa mu mu nekk it xam-xam boo xam ne da lay may ak tabe ci génne di joxe di dimbali moo xam tabe ci daraja la moo xam tabe ci alal la moo xam tabe ci lu mën a doom la wal xilmi nga lawet tamit wal ixlaas yi nga sellal sa digganteeg yàlla waaye sa digganteeg nit ñi ak xayaa ak kersa kon yii ay fadail la yoo xam ne xam-xam dala koy jox xam-xam bi am njariñ la wax wa sidqi wal xalwati wa tafakkuri bil xalwi wan nazari wa tadabburi xam-xam bi tax nga dëggu ngay wéet di xalaat di di di xalaat ci sa xol ak tamit ci di seetlu li yàlla bind ci ay kéemtaanam te nekk ci alxuraan bari lool afala yanzuruna ilal ibil allazina yatafakkaruna fi xalqi samawati wal ard rabbana ma xalaqta hada batila ay yu noonu yëpp nga di ko nga di ko xool di xool mbindeef suñu borom yi di ci gën a waaru mu di la dolli ngëm nee na xam-xam boobu mooy xam bi nga xam ne moom mooy jariñ mu ne wala wali taxalluxin bi xuluxin xasan fi sirri wal jahri bi xayril ixin mooy xam-xam bi nga xam ne dalay jox comportement tamit bu baax muy jikko ju rafet sa digganteeg nit ñi fi fi sirri wal jahri muy ci boo weetee ak tamit boo nekkee ci nit ñi ci lu feeñ ak lu nëbbu ndax mel neen ni ci kanamu nit ñi te soo wéetee xotti ormay sunu borom loolu nee na loolu loolu loolu eh, baaxul waaye kon xam-xam bi am njëriñ mooy xam-xam bi nga xam ne dalay may taqwa dalay may ragal yàlla ba sëk wéet ak sak ñàkk wéet ñooy yam ci yow wa jarrahu lil xawfi wa tawakkuli wa zuhdi wa rajai wa tabattuli xam-xam bi la xam ne moo lay jëmale ci ragal sunu borom subhanahu wa ak sukkandiku ci moom doyloo ko waaye tamit ci doylu ci àdduna ak dëdd ko ak euh, yaakaar sunu borom ak bay ak bàyyi lépp jublu ko dëgmal ko moom dong sunu borom wa axraja al xirsa maa altifaati ilal wara fii ayima aw xaati nee na xam-xam bi nga xam ne day génn ak xir ci àdduna nee na da koy génn ci sa biir xol bi ak jublu ci nit ñi di leen dii si soxla wala yaakaar leen wekk si sa mbir ci ñoom nee na xam-xam bi lay may tawxiit nga sukkandiku ci suñ borom ba nit ñi lañu yor nga bàyyee leen ko te yaakaar yàlla loolu nag mooy ximmatu tawxiit loolu waaye saa soo wekkee say mbir ci nit ñi xal ngaa sonn ci àdduna ndax bu boobaa yàlla bàyyee la nit ñi waaye képp ku jël sa mbir wékk ko ci yàlla suñu boroom jàppal la ko alaysa allahu bi kaafin abda kon loolu lu mat a bàyyi xel la wa axraja al xirsa wa takabbura wal xay wal xiqda wa ujban xad jara leen xam-xam bi nga xam ni mooy génne ci sa xol bi ki ñaan ak rëy ak bew ak soxor ak yéem say jëf loolu lépp ay jàngoroy xol la yoo xamante ne nii maari day taal yi day yàq dine day yàq jikko kon loolu xam-xam bi am njariñ nee xam mooy xam-xam bi lay dimbali ba nga mën a génn ci lii wa jarrahu ila nasihatin abat wa sillatin lil muslimina lis samat xam-xam bi nga xam ne boo ko jàngee da lay dimbali ba koo gis yéene ko jàmm koo gis yéene ko jàmm di ci laabiri jullit ñi waaye di ci dox mbokk ngir jëmbi yàlla suñu borom subhanahu wa taala mu ne fal ilmu in lam yufdi shaxsan lil huda fa innahu yajurruhu ila rada xam-xam daal bu gindiwul borom jëme ko ci ak njub da koy daal di réeral rek jëmale ko ci ak sànku daal di ne fal ilmu laa bi kasrati riwaaya bal innahu nuurun maa diraaya xam-xam daal nee na du xam-xam bu théorie bu bari boo xamante ni moom la ñuy bind di ko jàng nii rek mooy lépp loo gis xam ko nee na loola lu xam-xam waaye xam-xam nee na ak leer la goo xamante ne nii ak ak yëg aku xàmmee goo xam ne day gindi nit ki jële ko ci lëndam dugal ko ci leer te kon loolu moom mooy dëgg-dëggi xam-xam waaye du xam-xam boo xam ne da koy jële ci téere yi rek noonu di ko man di ko nettaliwaat loolu loolu du xam-xam waaye jeexintalu xam-xam comme mag ñi sax dañuy wax ne al ilmu laysa hadafan wa innama huwa wasila kon xam-xam ab jumtuwaay la rek waaye du du ab objectif du am ko noonu noonu loolu taxu ko jog nee na muy bëgg ñëw nag di waxtaan ci xam-xam yi nga xam ne mooy xam-xam yi dul jëriñ mu ne laa ma tuullima miraan wa riya awil mubahaati bihi faltadriya nee na xam-xam bu baax du xam-xam bi nga jàng ngir werante ak ngistal ngir nit ñi xam ne jàng nga am nga xam-xam koo waxal man koo yay wala koo weranteel yay ko wala di ca tiitaru nee xamal ne loolee du xam-xam ak lu bari bari ak noo ko mën a tuddee it loolu du xam-xam wala lazi suyidati dunia bihi li xobbi jaahin wa maqaamin naa bihi nee na xam-xam bi jariñ du xam-xam bi nga xam ne ba nga koy sàkku poñetum àdduna rek nga cay rëbb wala bëgg àdduna ak bëgg position ci kaw àdduna ngir nit ñi warmaal la yëkkati la nee na na moytu loolu loolu xam-xam mu ne wala lazi yutlabu li taxayuli bihi li sarfi kulli xalbin fanqili nee na du xam-xam bi nga xam ne mooy moom ngay jëfandikoo ngir ay fexe ngir fexe ba yéem ni ñëpp ba ñëpp gëm la topp la euh, jublu ci yow nee na am xel nee loolee du xam-xam ne fa kullu man li haadihi l ashyaa taallama al bi atina képp koo xam ne yii mu tudd ba ngay sàkku xam-xam laa taxoon nga di ko sàkku na walam yatub xablal mana mamaati wal kibar mu daarikan ma faatahu waxta sigar mu ne koo xam ne daal tuubo laata ak dee di ñëw wala laata ngay ak mage di ñëw te fexe ba dabaatal la nga xam ne moo faatoon ca jamono ba nga koy man jamono ba ngay nekk gone nee na nag fala lahu yowma suaali wal xisaab siwa wa baalin wa malaamin wa azab nee na kookee du am yowmal xiyaam lu dul ak ay ay ca ca bis ba nga xam ne ca la ñuy gaaral ñëpp di leen laaj sunu borom wéet ak ku nekk laaj la bis ba nga xam ne ca la ñuy xisaab ñëpp nee na du am lenn lu dul gàcca ak yeddaange ak mbugal kon loole lu mat a doy kon képp ku sàkku xam-xam te yii mu lim tax rek nga sa sàkk ko ci àdduna nee na xam-xam booba kenn du ko tuddee xam-xam waaye xam buy lor lañ koy tuddee ndax du la indi lu dul gàcce nee na ak ak ak ak ak ak mbugal mu rëy rëy ci suñu borom nee na li ann ilmuhu yasiru xujja xujja gadan alayhi faxsha tilka al xujja nee na boobaa xam-xam booba eh, nee na aw lay lay doon daal boo xamante ne nii day sotteeku ci kawam nee na na nga fexe nag ba ragal lay wu mel noona bu waa loolu gàcce lay rëy rëy moom la lay indil te defe naa ne yonent bi sallallahu alayhi wa ñu ngi jàng ci xadis muy wax ne am na ci ñett ñoo xam ne ci ñi njëkk a séndal ci sawara ci la ñuy doon waaye tudd na ca ba benn na ca borom xam-xam boroom xam-xam boo xam ne ba muy sàkku xam-xam la ko taxoon a sàkku mooy. ah ñu ne diw de nangam ak nangam ak nangam waaye sàkku ci woon ngërëmul sunu borom subhanahu wa taala buy waxtaan wala muy xutba wala muy dem di conférence ngir nit ñi wax ne ah diw de macha allah diw de bari na xam-xam diw nangam ak nangam wala diw de bari na mbooloo leneen loola texut ñuy ñuy sàkku xam-xam muy continuer ba tey ci même téere boobu di wax ni xultu ci téere bi nag da cee am moom benn méthode bu mu xam ne moom lay utiliser ndax buy nettali waxi jàmbur day tudd tur wa wala mu ne xaala waaye su fekkee ne waxam la nag danaan xultu moo tax da ko cee leeral mu ne xultu la xat xarral laina naasa washtaxalu bi ma yajurul basa mu ne maa ngi wax naal daal ne iblis nga xam ne moom la sunu borom rëbb nee na daal nee na wor na nit ñi ba xiir leen ñu jublu ci xam-xam boo xamante ne nii ci taskare rek la leen di indil moom moom la leen di indil washtagaluu bi ilmi maa laa yanfaau fi lxabri walxashri wa maa laa yadfaau lii nag xëy na am na tuuti contexte tamit ndax ñu ñëpp xam nañ ci Sénégal bi fa tubaab bi duggee bëggul woon lu dul jële nit ñi ci diine yóbbu leen ci ñu jàng làkkam moom xamal ñu seen culture xamal ñu seen lakk ëllëg ñu topp leen ci lépp loo xam ne ca la ñuy nekk walan tarda anka al yahud wala nasara xata tattabia millatahum lii tubaab bi indi woon nag gis ñu baree bare bare daw lu ci tubaab bi defa ne seen teraanga àdduna ak àllaaxira mu ngi ñu nekk ci loxol ab nasaraan ba képp ku jàngul français waroo tekki loolu dañuy gis ay jeexintalam ba léegi ci senegal ci nit ñi ni ñu fonkee njàngum français nga xam ne pare nañ ci ay école privée pour di ci fay cent mille par weer waaye ci daara yi alxuraan moom daanaka àllarbay juróomi dërëm léegi-léegi sax mu tëleen pour ñu mën koo joxe kon nit ñi toll woon nañ foofu ci boo xoolee gone yi dem ci njàngum tubaab niñ leen di toppatoo ak nañ leen di fonke euh, bokkul ak ñi nga xam ne dañuy jàng ci ñu tuddee leen ay ndongay daara nga xam ne nit ki jàng tubaab day jàpp ne moom moo supérieur nit ki nga xam ne alxuraan lay jàng wala arab nga xam ne nit ñi nit ñu tardé ñi lañ leen di jàppe wala nit ñi nga xamante ne nii daanaka moderne wuñ bokk lii daanaka kon sëriñ bi teel na koo xam dafa mel ni ci jamono jii sax la sëñ bi doon wax loolu kon lu mat a bàyyi xel la mu ne washtaralu bi ilmi ma la yanfau fi l xabri wal xashri wa ma la yadfau seen xam-xam yooyu ñuy jàng ne leen du leen jëriñ ci seen biir bàmmeel du leen jëriñ yowmal xiyaam bu leen di dajale nee du leen tamit euh, fegal mbugalum sunu borom laa yadfaw anhum azaba rabbihim yowmal jawa wan hamaku fil xafalaati wal hawa xam-xam bi ñu jublu ñoom du leen indil lenn lu dul nee na ak tooñ waaye tamit ak tamit ak sàggan ak ak bànneex ak ak topp bànneexu bakken loolu nag jubluwuma ci ku jàng français rek noonu ngay mel waaye bari na ci ñoo xamante ne nii la tubaab ba réussir def ko ci ñoom ci njàngum tubaab bañ noppee daanaka dañoo mel ni ay tubaab yu ñuul rek ndax lépp loo xam ne jaaxaan la wala mbirum àdduna la loolee ca la ñuy nekk ca la ñuy jeexal si seenug dund ndax danañ buñ leen jàngalee ba noppi daanaka nu ñuy naxee nit ñi ak nu ñuy xeebe nit ñi ak nu ñuy yëkkati seen bopp noonee rek la ñuy la mel ku dul ku ci yàlla dimbali kon bu xam-xamu lislaam njëkkul ci yow ay jikko yu rafet njëkkul ci yow boo jaaree ci tubaab bu la yàlla dimbaliwul rek mën nga sànku ndax seenu xam daanaka lu ci bari xam-xamu kàccoor la ndax duñ la euh, mbirum àdduna rek te ko tax a jóg ne fa laysa kullul ilmi nafan zaxtiwa wa laysa kullul ulama fistiwa mu ne kon xam-xam yëpp daal ndeke ne amuñu njariñ du yëpp ñoo ñoo am njariñ waaye du xam-xam yëpp boroom xam yëpp it ñoo tolloo fa fil ulumi maa yu xassil xalba wa yujibul kibra wa yunsir rabba nee na am na ci xam-xam yoo xam ne nee day wawal xol nee na waaye day waral tamit ak rëy tey dalay fàttiloo borom bi subhanahu wa taala xam nga boo demee ci suñu université yi ñañ leen di jàngaloo ñi nga xam ne dañ naan ñii dañ naan yàlla deena wala ñii ñu ne yàlla amut wala ñu ne lii ay lépp la bu ko defee ñooñee ñu def leen comme ay borom xam-xam yu mag di leen tiitaroo loola dañ koy jàngale ci Sénégal bàyyi sunu mag ñi ñi nga xamante ni au moins am na ci sax ay ceddo yoo xam ne xëy na ci ceddo lañ leen di tuddee waaye ay jàmbaar yoo xamante ni xeex nañ ba seen deret ngir ngir ngir ngir ngir aar seenu réew ñenn ñi it seen bakkan diine nit ñi nekk ci diine jaral jaral jaraloon na leen ñu joxe seen bakkan loolee lépp am nañ ko ci senegal te ñooñu daanaka duñ leen dégg duñ leen tudd waaye ay tubaab yu weex tàll yoo xam ne gëmuñu yàlla xeex diine weddi lislaam weddi sayduna muhammad sallallahu alayhi wasallam weddi yàlla ñooñee lañ leen di jàngal di leen tiitaroo Eh, di leen yëkkati def leen ay ay ay ay ay ay ay ay ay royukaay kon kon loole toskore la waaye loole it mooy lii nga xam ne moom la sëriñ bi da wax li koy dëggal kon xam-xam yi tax nit ñi fàtte yàlla nit ñi amu ko rëy xeeb sëriñ si xeeb nit ñu baax ñi loolee kon du xam-xam bu baax ne wa hakaza fil ulumi qawmun fil fil ulama i qawmun jazaa'uhum ghadan ridan walawum kon am na ci borom xam-xam yoo xam ne yowmal xiyaam nee na seenug fay eh, du lenn lu dul alkande akuk yeddaange mu ne xultu fa laysa yanfaul abdu ulum yarumuha li xobbi madaxin laa yarim nee xam-xam bi nga xam ne ba nga koy sàkku ngir ñu tàgg la moo tax nee na xam-xam boobu nee na du la jëriñ wala lazi yutlabu lit tasaabuqi awil munafasati kal munafiqi nee na xam-xam bi ngay sàkku it ngir jiitu nekk ci kanam waaw loolu it nee mel ni ab naafiq loolu it nee na du xam-xam wala lazi yutlabu lit tabaaduri ilal fatawa wal qada bi ngay sàkku ngir ñu jiital la ngay ngay ngay ñu lay laaj ngay wax wala ngay atte wala wala wala ngay génne ay laaj loola taxut nee na loolu du xam-xam bu baax wala lazi yutlabu yatlubuhu l insaanu li ajli an yaabudahu l aqraanu xam-xam bi ngay sàkku ngir say mbokk topp layit nga bëri nit foo jaar ñu ne waa ma nga ne nee na loolu it du xam-xam bi nga xam ne moom la ñu war a sàkku wala lazi yufni bihi zamaanu billahi wallaabi ya ixwaan nee na du xam bi nga xam ne da nga ciy jeexal sag dund ci fo ak ci jaaxaam rek nee na yéen sama mbokk yi wala lazi yamla u xalban xasada aw xiqdan aw kibran wa yaxrumul huda nee na du xam-xam bi nga xam ne day day day feesal ab xool ci kiñaan ak soxor ak rëy nee na it day xañ nit ki njub wala lazi la ila di awit tanazui awit tanaxudi nee na du xam-xam bi nga xam ne it mooy indi ak mbañeel ci diggante nit ñi wala ab xëccoo wala wala ay ay ay ay ay ŋaayoo wala xiiroo wala lazi yufdi ila taazumi walit takaburi wali taxaasumi xam-xam bi indi xuloo ak yëkkatiku ak rëy nee na loolee it nee na nee du xam-xam kon Euh, gudd na mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi xaw a bari waaye buñ ko toppee lii rek misaal la ci xam-xam yi am njariñ yi buñ koy sàkku na jëmm yàlla tax nañ ci defaru zahir ak baatin nañ ci it euh, jaamu yàlla te dimbali ci nit ñi yee ci nit ñi ba xam suñu borom xam nuñ koy toppee loolu kon mooy xam-xam bi nga xam ne moom mooy jariñ euh, ma jeexalee it lu gàtt rek muy xam beneen xam-xam boo xam ne tamit ñu xaaj ko beneen beneen beneen xaaj ginnaaw biñ ko xaajee ci xam-xam bi nga xam ne mooy xam-xam buy jariñ ak bu dul jariñ borom sëñ bi xaajaat na ko ci ñaari xaaj moom borom moom moom moom xam-xam loolu it mu ngi ko jëlee ci yeneen téere wala ci yeneen waxi borom xam-xam mooy borom xam-xam dañoo xaaj xam-xam tamit ci azahir wal batin muy xam-xam bi nga xam ne mooy xam-xam bi feeñ xam-xam bi nga xam ne xam-xam bu nëbbu la. loolu nag niñ koy mën a waxee mooy xam-xam bi defar euh, euh, sa sa sa mbiru zaahir ak xam-xam bi nga xam ne mooy defar ci mbiru baatin ngir mën koo leeral sëñ bi tënk na ko ci ay bayit mu ne al ilmu inda al ulama yanqasim li zahirin wa baatinin sirin kutim mu ne xam-xam daal ci ñenn borom xam-xam yi nee na dañ koo séddale ci ñaar xam-xamu zaahir ak xam-xamu baatin bu feeñ ak bu nëbbu mu ne zaahiruhu mu ne xam-xam bi nga xam ne moom la ñu wooyee xam-xamu zahir muy bu feeñ mooy al muslihu lil amhali wal baatinu al muslihu lil ahwaali mu ne xam bi nga xam ne mooy bu feeñ bi moom lañ wax ne mooy li nga xam ne mooy defar jëf yi euh, baatin bi nag mooy xam-xam bi nga xam ne moom lañ tuddee xam bu nëbbu bi mooy xam bi nga xam ne nee na mooy defar mbir yi mooy yi nga xam ne mooy mbir mbir mbir yi fa awalun bismi tafaquhin doyi wa saani anhum bi tasawufin wayi mu ne xaaj bu njëkk bi ñu ngi ko tuddee fiq fiq nag boo ko xoolee benn terme la mooy ñu ngi ci jublu euh, jaamu yàlla yi nga xam ne moom la ñuy faral di ko def te nit ñi mën cee teg seen bët di ko di ko gis yaatu na lool nag ndax leeraloon naa ko ca waxtaan wu njëkk wa ci xeeti xam-xam yi euh, lu mel ni julli tey ak woor Euh, boo ko doon gëstu ci téere borom xam-xam yi ci buntu fiq nga koy jublu euh, nga koy seet ci ibadatul mahda ak ajak yu mel noonu yooyu ay jëf la yoo xam ne nit ki mën na cee teg bët ndax jëf yu feeñ la sharia la kon waaye wasaani anhum bi tasawufin wuyi mu ne xaaju ñaareel bi muy xam-xam bi nga xam ne xam bu nëbbu la nee na mooy xam-xam bi ñu tuddee tasawuf tasawuf nag buñ ko waxee ci gàttal daanaka mën naa ne loolu baat bi bari na ay wax waaye ci gàttal fii li ci sëriñ bi jublu mooy sellal kon sellal nekkul lu ñuy gis ndax loolu ci xol lay nekk ma jox la ci misaal ci nii sëriñ bi waxee lu mel ni julli julli tey dafa mën naa ne ñaari xaaj la am na ci xaaj boo xam ne zahir la waaye am na ci xaaj boo xam ne baatin la xaaju zahir bi mooy nit ki day dem jàpp ñu gis ne kii jàpp na mu ñëw lal si jaadaam taxaw jublu penku ne allahu akbar tari fatiya tari aw su saar rukkoo sujjoot taaya ñu gis ko loolu ak julli lañ koy tuddee kon loolu mooy côté bi nga xam ne mooy côté bu feeñ bi waaye julli am na tamit zaay am na baatin baatin bi mooy alxashiya mooy wala alxushu mooy toroxlu gi ngay toroxlu ci biir julli gi ak concentration bi ngay concentré mooy dajala sa xel ak sa xalaat yépp ci xalaat sunu borom subhaanahu wa taala teewlu gi ngay teewlu ci julli gi loolu jëfi xol la te loolu kenn mënu koo gis yàlla rekk ko mën a yëg moo yàlla rek ko mën a gis ndax mooy ki nga xam ne moo xam li nekk ci xolu jaam bi ndax bu ma euh, taxawee du julli euh, gis nga maa ngi këpp-këppal waaye xamoo ndax man sama xel mi mu ngi ci biir julli gi wala mu ngi ci man ca leneen kon lii yar nit ki ba buy julli mu teew lu julli gi loolu xam-xamu tasawuf la mu ne sammata taqdimul fata al fiqh ala tasawufin wujubuhu xadin jala mu ne nag nit ki bu jógee jëm ci yàlla nag nee na njëkkee nag xam-xamu xam-xamu euh, zahir boobu xam-xamu fiq boobu na ko njëkkee na xam charia ba noppi xam digal yi xam tere bu ko defee nag nee na boroom xam-xam yi nee na loola moom moo njëkk ndax képp ku jëm ci tàmbalee ci defar sa xaal te defaroo sa charia ba noppi nee na ko xas nga xal nga jàdd nga yoon wa mu men faman ila ixlaalil awal intama ku bàyyi bu njëkk bi muy tëb rek nekk mutasawif euh, di di di xalaat ak comme niñ koy waxee maanaam ne da ngay defar sa biir te fekk defaroo nekkoo cee la la yàlla sant muy julli julli woo euh, jàngoo charia xam nu ñuy defaree say julli xam nooy defaree say woor say ajak yooyu yëpp nee na boo njëkkee wóotu loolu nee na fexe nga ba nee na nee na na xalaka fi dunia bi xukmil ulama nee na kooku sànku na ci ni ko borom yi attee ni ko ni ko borom xam-xam yi attee kooku sànku na ci àdduna ndax la waroon a njëkkee njëkkewu ko mu ne mu ne waman yakun bi sani za ixlaali koo xamante ne nag bu bu ñaareel bi da nga koo da nga koo doyadil wala wala wala wala wala eh, yittewoowoo ko mm. nee na yaxliku xadan bi xukmi zil jalaali kooka yomal xiyaam ah nee na bu boobaa euh, dana dana dana alku ci atteb sunu borom bi subhanahu wa taala lu tax mooy ndax bu njëkk bi dafa jëm ci sellal te wax naa leen ko bu fekkee ne nit ki day jaamu yàlla te sellalu ko du ko jariñ bu fekkee day jamu yàlla te xamu nam koy jaa jaamoo it duñ ko nangu duñ ko nangu fii ci àdduna duñ ko nangu ci àdduna waaye duñ ko nangu ci àllaaxira ndax waxoon nañ ko léegi fa man kaana yarju liqaa rabbihi fal yaamal amalan saalihan borom xam-xam yi wax nañ ne al amalu saalix mooy loo xam ne déggoo na ak sunna si yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax kenn du fi indi sax jaamu yàlla ñëw ne nii laay jaamoo yàlla waaye nañuy jaamoo yàlla moom yàllaa koy tànnal boppam yónni ab yenentam yenent ba leeral ko ne nii la ñuy jaamoo yàlla kon kenn kenn sañut eh, eh, indi sa sa sa façon jaamu ne man nii laay jaamoo yàlla bu boobaa da ngay topp sa sa bànneexu bakken comme sëriñ bi kon leeral na euh, ñaari xam-xam yooyu muy xam-xamu zahir bi nga xam ne moom la ñuy gis mooy li lislaam santaane nga def ko bu ne nañ woor nga woor waaye la nekk ci biir woor ak la muy def lépp loolu xam-xamu baatin la loolu tasawuf mooy dimbali nit ki lépp lu muy def mu def ko te yàlla tax mu jub lépp lu muy lu muy lu muy def mu nekk mu yàlla jëmi yàlla tax loola nag booy xool moom mooy mooy ximmatu at tawxid mooy wéetal yàlla ci lépp Euh, muy tawxidul xasd yow sa sa yitte yëpp ci àdduna ba ci mbirum àdduna booy lekk booy naan booy nelaw euh, lépp looy def euh, danga cay fas ne danga cay jaamu yàlla loolu moo tax Ibnul Xayim dem ba ne aada yi sax léeg-léeg dana dem ba nekk ay jaamu yàlla mooy annal aadaat tanqalibu ila ibadat bi bi niya loolu loolu loolu loolu mooy ila ila ila niyat kon kon ci niye rek ci ci sellal ci ci yéene ji nit ki dana dem ba buy liggéey yàlla di ko ci bindal tuyaaba euh, buy nelaw yàlla di ko ci bindal ndax yéen bi soo sana wax na sax ne nit sax dana dem ba buy sëy ak soxnaam sax sunu borom da ko ciy bindal tuyaaba kon loolu ñu ngi koy déggee ci bunt bi mooy nit ki lépp lu muy def bu ca fas bu ca fasee yéene jaamu yàlla rek loolee day dafay doon tuyaaba kon foofu rek lañuy waxe nee fa waajibun alal ibadi turra jam'uhuma li kay yanaalul xayra nee na war na ci jaam ñi ñëpp nee na ñu boole ñaar yi di fexe ba suñuy jëf di dëppoo ak ni ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam indee waaye tamit ñu bañ caa dugal kenn bañ caa bokkaale kenn def ko rek ngir jëmi yàlla kon loolu lañ bëggoon a leeral rek euh, incha allahu taala ci xeet bi kon ñu ngi siyaar euh, ñëpp di jéglu ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi